Reum nuyu naa maa lay fay Ousseyn. maa ngi leen di sant Serigne Touba. baal ma baal naa yàlla na yàlla boole baal ñu fekk doon yow borom baax nga amaloo kenn aar. gëj na laa gi ci loone waaw maa ngi rek nekk sama rukk di liggéey rek. waaw instant daal ma war moo tax moo loolu. sa combat yi ak ma ñaabu ndaw. lan nga ci jàngee parce que bu ñu xoolee nag euh, bi combat bi taxawee ñu ngi doon waxee jàpp nga ni boo jàppee ñaabu ndaw defaral ko wala boo ko jàppee sa diggante yaag moom nekk woon boo yaakaaroon ne duñ ci daanoo duñ ci daanoo naka la la def a defee. non lamb woon rek xam nga rek instant man li nekk sama kanam laa xool ñaam la champion la moo loolu. lan moo la daan. non war a daanu rek kenn daanu ma damaa war a daanu rek. maa ngi dégg ñu ñaan ma ko respecté wul la ma ko joxul cër. waaw ah, respecté woo gars yi ñu bari loolu la ñu wax. waaw respecté wu moo ko mais xam nga rek lamb la rek ñun daal Ousseyn ñu ngi si ñu ngi suñu liggéey bu baax xam nga. du laaj suñu rôle bu baax ak Serigne Bamba bu ñëwaatee rek nañ xam ne Baye Fall bu ñëw la mais man dafa am lu ma neex rëm tuus tuus bi noo ko créé ak foo ko jëlee. waaw ak nga sama géwél mooy loolu sama géwél ak géwél Mamour ñoo bokk ndey ak baay. waaw Ousmane Sène moom mooy moom day créé rek. dañoo toog benn suuf mu ne ma làmb di li na yàlla lan la la tëggul. la ma tëggul yaa ñu moom. non ma <laughs> waaw loolu dafa garaaw mooy loolu. <laughs> loolu dafa garaaw ba ak Bamba ñëpp ñi rek. moom mënu ma dara sama géwél xam nga rek ñoom ñooy kii. ba toll gars yi ñan la ñuy wax. waa ñuy wax combat la gars ñu ñuy wax rek. mais xam nga rek lu ñu wax tamit man ñu ma bëgg a bëre instant man ñu ma wax ñooñu arrangé wuñ ma tam tamit gars yi kese bu ñu fay moo loolu dafa ndaw. doo bëgg ay millions. yooyu kon gis nañ numéro arrêté national Ousseyn. duy nga ko moom ba mu fees. cal ba nga arrêté national sama morom kon lu ma fa def gis na sama morom bu ko fa defagum. yombul de bu fa amee tamit. maa du cal ba ba cal ña ma wax xaalis mooy ne ñoo ñoo fa ay 1 million du ma ko bëreel 4 millions laa la ku ma fay 4 ma bëreel la waaye 1 million 500 moom ma ko. fuuy nga ne 4 millions. du fuuy Ousseyn yow arène nationale yow tey loolu lamb dafa métti arène nationale gis nga lu ma ko def barke Serigne Bamba. ba léegi nii ba ma ñu sa ëppante presse membre promoteur yi ña ngi may woo ña ngi may de juillet mais nee naa ma boo la fay xaalis damay barke yàlla bu ma fay mais comme ñan gannaaw ñi ñu lay proposé bëggoo leen comme ñan. non am na ñu may wax ñooñu xam nañ ne du ma tudd seen tur man du ma tudd benn benn mbër. mais tudd nañ ci ñoo xamante ni sa diggante yooyu ñoom jàpp nga ne combat bu neex. kan la non ba xam wax nañ la ñoo xamante ne jàpp nga ne combat. ñu ma wax ñu ma wax. maa ngi combat la su ma nee ba ñoom duñ ma ba maa ngi ñoom combat la mais kase bi moo ndaw quoi. 4 millions buñ ma ko fayee ma dem bëral leen. lamb dafa metti wër na yàlla man su ma jugee gox bee may topp ba pare période gis nga. ba pare période sax ñu fa ñëw mooy loolu mais lamb gis nga loolu fa indi ma su ma jugee gox mooy topp bi na fay xaas ma bëre loo loolu tam boo bëlee gisaguñ ma dimanche nañ ma xaar daa ñëw stade. lan ngay wax lan ngay wax maam moom. champion la ñu ànd préparation lépp. mais nag mais nag ki ki muy bëreel dafa mel ni duggoon ma fi. jëflante ak yow war a jëflante ko dégg muy wax rek. kooku daal kër yow ak moom nan la demee. Mamour bu ko jàppale nga duma daan maa ngi ñaan doom phase bi suñu borom dafa la ko ndam seetlu bu ba am benn wérante. dafa sonn si làmb ji Ousseyn barke Serigne Bamba. Hmm. ñu ànd fépp xam nga di yëg di dem contact fu ne fu ne ñoo fa ba tey te tamit dafa def geste bu rafet sama open de ma c'est la première fois ma sol t-shirt mbër c'est la première fois man moom ko solee sa nit dañ maa xool mais man moomu ko jiiñ quoi damaa xewle mu defal t-shirt bu rafet ñëw dooleel ma yaa ngi dégg sama doom lay Aliou Thiam moom a sincère sa ki sama doom lay sama sa la woon a Serigne Bamba daf may jàppale suba ngoon guddee bëccëg Serigne Ndeye wax bilaay daf ma jàppale suba ngoon guddee bëccëg Mamor maa ngi mu benn la jàppale Mamor ñoo bokk ñuy bu ñuy tëggal ndam rek laa wax ñaar Ouzin. sax maa ngi yéen laa bëgg yow nga seet ma daa ma ñu war a waxtaanee. barke Serigne Bamba. damay ñëw Ouzin sama retour du yombaat de. rëm nga fay xaalis damay ñëw bëre mais kese moo ndaw. du ma